Sonko mi ñi fal bees ilimaanu jéwrin yi jébbal nañ ko lenge yi ngir mu door liggéey bi bis ni ki tey mooy jiite mboole mu jëwriñ yu ne ci gouvernement bi ngir ñu doxal seen mission ci bopp nguur gi mu di fonction bi nga xam ne ni ci taarixu réew mi jot nañ ko jébbal fukki nit ak juróom benn benn bu Léopold Sédar doon jiite ñeent ci Abdou Diouf juróom benn ci Abdoulaye Wade ak yeneen i juróom gannaaw bi nga xam ne ni Macky Sall jiite na mu di ay góor ak jigéen yu jot a jaar ci primature ba te ñu ràññeeku ci kuñ ci njëkk fal mu di Abdou Diouf. diggante 74 ak euh, léegi Abdou Diouf quand même moo gën a marqué ndaxte nekk na premier ministre nekk na président de la république marqué na histoire état bi administration bi politique bi même suñu diggante ak euh, bitim réew euh, Abdou Diouf quand même c'est vraiment le successeur de Senghor. bu weesuwee Abdou Diouf am na ñeneen it yi nga xam ne ni eh, jot nañ fa ràññeeku. Macky Sall mën nañ ko comparer ak eh, Abdou Diouf ñu ci des yëpp bon ay premier ministre eh, administrateur civil lañu wala ñu nekk politique à part peut-être exceptionnellement Amadou Ba Amadou Ba moo nekk ministre des finances nekk affaires étrangères. ci lii la ilimaani jëwrin ñu mën cee nemmeeku ñaari jigéen maam major Boye ak Aminata Touré postu ilimaanu jëwrin bi nga xam ne ni moom la ñu jëbbal Ousmane Sonko am solos lool ngir ñu jëmmal réforme yi nga xam ne ni moom la nguur gu bees bi nam ma def waaye chef gouvernement boobu ñu daal di koy faxas ci ndeyu charte réew mi lu ci mat lu toll ñetti yoon diggante atum 1963 jàpp 1970 ci nguuru Léopold Sédar Senghor ci atum 1983 1983 jàpp atum 1991 ci nguuru Abdou Diouf ak it ci atum 2019 jàpp atum 2022 ci nguuru Macky Sall